waxtaana waa commune bu Tivaouane Peulh Niaga li waral woote bi nag ku ne xam nañ ne dañuy jëm dañuy jublu ci élection locale te man ma nekk candidat ci élection yi ñu jëm muy le 23 janvier 2022 li ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd guy ba ñu mën a dem gérer commune bi Tivaouane Peulh ñaar bi commune ak commune Dakar man Abdoul Aziz Sall nag li may faral di wax toujours man ñàkk rob fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa defee dem defe sama cycle secondaire Tëngéej bu ma demee ba classe de troisième toujours dama koy faral di wax suma yaay soxna Jigéen Njaay nekkoon jigéen bu diminué bu yàlla dogal mu néewoon doole lool te yaakaar naa ne képp ku ma xamoon ci njàng ñu ma bokkaloon classe am na ñu ne fii xam nañ xam nañ ni bokkoon naa si.

99 la diocèse Dougouchi commerce 99 madame Niang la Croze Niang la Croze voilà nek don def de commerce de 2011 l'a opté pour Dougouchi promotion immobilière Madame fait formation aussi parce que comme immo immobilier sensible ma dem formation bi bi ma sa la agence immobilier bolé ko ak di bâtiment en quelque sorte dal dugg ci opérateur économique pour la ma say que askan côté social ndax comme man xam naa souffrance ndax si souffrance laa nekkoon man man ak suma yaay ah kon su ma amee dara as néew war naa xool ñi xam ne mën naa leen dimbali ma dimbali leen te yàlla rek tax ci loolu laa nekk di def opérateur nekk opérateur économique yor entreprise bu ñuy wax agent bu ñuy wax agent Serigne Babacar si mu nekk fii si commune Tivaouane Peulh Niaga si yoonu Lac Rose bi

nañu daal dañoo am choix si yow pour ñu créer benn mouvement bu ñuy wax ànd defar suñu gox nga jiite ko ndax dañoo bëgg a dem élection locale yi di ñëw diisoon na ci man parce que comme man daaw ma def politique te liggéey rek laa xam social daal laa gënoon si social bi laa gënoon féete dimbali askan bi ah bi ñuy wax ma ko moo recevoir leen ñu waxtaan.

ñoom ñu xamal ma ne comme ñoom dañu am choix ci yow te yaakaar nañ ne choix bi mën nga koo doxal ah ñun daal bu ñu sañoon nga bañ leen a gàntu ci laa leen joxewaat rendez-vous ci suma agence laa leen jox rendez-vous parce que euh, heure liggéey la woon bi ñu ñëwee man a leen d'accord naa pour ànd ak yéen si mouvement bi ngeen di wax.

yoon boobu daal ci lañ nekk ba tey en principe kon do yaakaar naa ne loolu moo ma dugal ci politique pour gën ko leeral askan wi askan wi gën ko xam